fala ma leen jaay fala ma fala ma leen jaay fala ma leen jaay ñànku léegi day way boppam la janaa ñànku yow xanaa gisoo ñànku yow boo xamoon ñànku doo la jekk mooy ñànku boppam la janaa ñànku yow xanaa gisoo ñànku yow boo xamoon ñànku doo la jekk mooy ñànku ñànku dafa leew bu ngi kon ba coog ñi ko mag lay kekkan toog ñànku ba bu jàng booy rangu soot ñi nee nañ dafa doog ñànku kooku li baa mbalak meel ku ne

oh voilà wa Star foo ci bëgg a dem. papa wuy ma yow. Eh. bari ci demoo Ndiaye fii nga wax ni sëriñ nga te ne ko sëriñ man ba hmm. ma damay ne la man Ndiaye. xool ba jumaa ja eh eh bu ma kontaan la eh nga jumaa ja laa jógee léegi dama wàcc ji woon kaani see laa jaar ñu naa ma sa doom ji daara yow dama la yóbbu daara Iran wala daara Sarr waa wàcc. wàcc ma wax la. waa dama dama déglu de. ma yow dama jëm ci kaw ah maa yow ko ñaan yow. baba doxoon na ma xamoon naa ne ni ko def. waaye yow tey waay fi nag tey mbootoon naa la. man xamoon naa ne nga doxoon nga fay. Faba yaa ngi fàttali. li neex na de. waaw fama fama fama. waaw taxal taxal taxal taxal fii mu dee baaxul. Faba daf lii. waaw waaw wuy. téere bi waaw dama la ko jënd sànq. nga dem fee daara Iran na ni booy jàng booy digle jàng na nga jàng yow yow jàng. xaaral waaw rek. xaaral xaaral rek xaaral taxaw rek makoro i taxaw rek ay bi fii la ne woon. waaw makoro wa kubaaran. waaw waaw taxawal daal. ma comme nu mu wootee daara ja waaw lay jàngal ci kër gi léegi waaw dama jàngal ci kër gi nga dem daara ja dama jàngal ci kër gi daara ja dama bëgg nga dem boo àggee waaw pou daara ji say moroom a fa ne te daara ji ay pomme ay banana dina am macaroni sax man lekkuma macaroni de di nga lekk macaroni banana mën naa dem macaroni man lekkuma macaroni parce que macaroni da day tax ngay rey taati laa koy dugal kon nu génne sa gémmiñ barki dem nga njaay rek la la dal ba nga kuuf sa tubay taawa rek loo bëgg ma dari na ko li damay tali tabat yadaa moom jeex tabat yadaa waaw osibila osibila da may déglu nag du ma sa morom. yow yow yàlla bala jàppee dinaa eh, que alxuraan di ko fooye. loolu nga wala wax. Eh, waaw ah, xanaa taxaw. papa def ne yow moo ko la tabat yéen a rek. Eh, ci mun nga. taar bi tar naa ko bi yàlla dama ko tar suuf dee góoma nag. njàngum sabaa de ay njàngum njàngum gumba. waaw waaw ay dégg njàngum gumba te bëgguma nga jàng njàngum. waa léegi waa léegi même saafara ma nag njàngi. na mu fol na même saafara ba ñëw ma may la cent franc. yaa ko war a. waaw maa ko. teel teel ko téye nii nii nga koy téye ko. laa ko téye. waaw waaw góor. waaw góore waay. doom day jàng melal ni sa baay am xam-xam. boo màggee kenn bañ laa yëpp gisoo ni ma amee cër ci koñ bi kenn ma léegi ñu jox ma chef de quartier bi nag waaye li sama problème jigéen ndongo laa bëgg mënu maa ne chef de quartier bi xaaral ma toxantu ba neexoon xale yi.